àllarba fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier jamono ji ñuy wax ak yéen benn waxtu moo jot ba tegal fukki simili ak ñeent xabaar ngi nii bu jàmp ñeel mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr bu nu sukkandikoo ci RFM doyen des six Omar Maham Diallo jël na dogalub yóbbu Ousmane Sonko ca chambre criminelle bu Dakar ngir ñu àtte ko fa bu nu sukkandikoo ci RFM daal nee ñu am na document yoo xam ne wala document boo xam ne envoyé nañ ko mboolem avocat yi nga xam ne ñoo nekk ci dossier boobu mooy ñiy leyal Adji Sarr ak ñi nga xam ne ñoo leyal Ousmane Sonko xamal leen daal ca Euh, dossier boobee ne moom inculpé na ki nga xam ne moo di Ousmane nga xam ne Adji Sarr na ko ci kawam muy wàllum viol ak menace de mort ba tax daal nee kon dana yóbbu dossier bi ci chambre criminelle bu Dakar ñu atte ko fa. ba tey buñ sukkandikoo ci RFM nag date bi nga xam ne a amal ne moo di atte bi moom communiqué guñ ko xam ne mooy ci mbiru Adji Sarr ak Ousmane Sonko dana ci am te doyen de sis jël na dogal bu ni mel xabaar la boo xam itam gis nañ xabaar gii di tv itam ñoom daal di koy jàllale sukkandikoo ko ci waa A7 mel ni xam bonne nouvelle xam pour ñenn ñi mauvaise nouvelle pour ñenn ñi mel ni euh doyen des juges jël na décision yobbu Ousmane Sonko chambre criminelle suma problème nak suma jafé jafé moy man lima jang ci droit en matière criminelle ken kenn du ñëw tribunal libre donc inculpation bi dafa waron am dañ ko waroon a inculper yóbbu ko kasso mettre ko aux arrêts pour mu mën répondre à la justice mais man xawma en matière criminelle

dem kasso Ousmane Sonko mo ci dess pour mu wuy ci tribunal Audio Jungle.